taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax di jiital ci nuyu ak ziar yi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi Serigne Touba Cheikhul Khadim di ñaan sun borom mu dolli ko fa yàggal bu baax a baax te mooy ko wér ba ay naalam lépp mu yeggale ko ba sumb leneen tañ fekk lépp waaye ñaanam ko baax suñu jàmbaar jii di Serigne Cheikh jëmm di ñaan sun borom mu dole ko fa yàggal bu baax a baax te wéral ko ba ay naalam lépp ci liggéeyal maamam Cheikh Ibrahima Fall mu yeggale ko eh, ba sumb leneen di ko ñaanal baax mboolem njabootu Serigne Touba mboolem Cheikh yi Serigne Touba yëpp ci weeru màgg wu tedd wii ñu nekk muy weeru Kazu Rajab di bisub Cheikh Mouhamadul Fadal bi nga xam ne mu ñuy dëgmal incha allahu suba ak jàmm xam ngeen ne tey jii ci samedi bi délégation bu mat bàyyi ko ci ki nga xamante ne bii mooy Serigne Cheikh Jëmm di maam Cheikh Ibrahima Fall. tey ci kaw suuf di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér waaye délégation boobu itam ki ko jiite tey di Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng moom Cheikh Modou Moustapha Fall eh, Serigne Salihu Fat Saw moom Serigne Modou Moustapha Fall waaye ànd ak mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp nag la ko tàmbalee ci kër Cheikh Modou Moustapha Fall ba ci kër sëñ Gunda Sa Bigé képp koo xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall moom meññ sa wayjuru ànd nga délégation bi nga xamante ne bii moo bàyyikoo ci Serigne Cheikh jëmm waaye jëm fan ci kër Serigne Abul Baraka Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal bi nga xamante ne bii tey mooy Serigne Fallou ci kaw suuf di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér ba naal yi Cheikh Mouhamadul Fadal naaloon lépp mu yeggale ko ba sumba leneen ak mboolem rakkam yi nga xam ñoom la bokkal Cheikh Mouhamadul Fadal ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne ñi ngi koy séntu incha allahu suba ak jàmm di dimanche di màggalu Kazu Rajab xam ngeen ne tey jii ci samedi bi di bis bi nga xamante ne bii ci la ñuy fàttaliku jàmbar ja Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moom Serigne Fallou mi nga xamante ne bii xam ngeen ne mooy fët sët bi njëkk a toog xilaaf ak Serigne Touba Cheikhul Khadim eh, yàlla dogal tamit mu demoon ci waxtu yi yi nga xamante ne bii bi ñuy waajal màggalu Kazu Rajab euh, suñu borom dogal euh, ñu di ko fàttaliku tey ci aliya jàmbaar ji di Cheikh Moustapha Mbacke nekkal ko fi di ko taxawu Serigne Cheikh Jëmm yebal délégation ñu bàyyi ko ci moom waaye départ ci liggéey bi nga xam ne mooy stade ba woon te Cheikh Mouhamadou Mountakha sant ko Serigne Cheikh Jëmm ngir ñu def fa daara ak jàkk délégation bay Fall yi tàmbalee foofu départ foofu wuti aliya ngir ziar sëriñ Moustapha Mbacke Alaaji Baara ci bis bu màgg bi nga xam ni moom lay taxawul way juróom ba di bisu ñaan ak fàttaliku Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke moom sëriñ Fallu moom sëriñ Touba Cheikhul Khadim waaye di ñaanal bu baax a baax itam ki nga xamante ni bii mooy Cheikh Moussa mu yàgg fi lool ba jotaay bii mu wuutu tey Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu yeggale lépp ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall xam ngeen ne itam bu ñu fa jógee war a jaar ci ki nga xamante ne bii mooy Serigne Abul Baraka xam ngeen ne moom Cheikh Mouhamadou Al faadal di fàttaliku bis bu màgg boobu mooy bisub Serigne Fallou ñu màggalu Kazu Rajab guddi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadou Fadal ñëwee jamono Serigne Abul Baraka jiite njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gépp ñu di ko fàttaliku di ko waaye xam ne ne ren Serigne Mountakha euh, joxe ci ndigal xamante ne bi yaatu na lool mooy kenn ku ci nekk di ko ko ak ñaanale fa nga xamante ne bi foofa nga nekk njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal kenn ku nekk Hallelujah. Deus. Hallelujah. alaaji fal lii la woo doy nga noo ah sëñ Fallu doy loo nan la Cheikh Ahmadou Fadal sëñ Fallu doy loo noo alaaji Fallu mi doy la woo alaaji fal lii la doy nga noo ah sëñ Fallu borom nit ñi doy na noo doy nga noo borom sa yabal sëñ Fallu doy La ilaha illallah. Mama don't Touba Cheikhul Khadim amuñu lu dul njabootuk Serigne Touba Cheikhul Khadim ndax maam Cheikh Ibrahima Fall te jaayanteem nga dafa waxoon Serigne Touba Cheikhul Khadim na ko sama lépp day màggal sa lépp waxaat ko ne na ko ba ma jur sama doom yi sa doom ya tax loolu feeñ na tey jii fépp foo xamante ne bii doomi Serigne Fallou mel nga fa rek am na nañ yéene ak pas-pas ziar la waaye tamit ndokkeel la ci bis bu màgg bii di bisub Cheikh Mouhamadou Fadal waaye njëkkee itam ci jëwriñ ji tedd ji nga xam ne mooy Serigne Abol Baraka tey di Serigne Fallou ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi loolu te wér xam ngeen ne délégation bi desul kenn desul mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ànd nañ ak njaboot gi ànd ak délégation bi nga xam ni Serigne Cheikh jëmm moom la yabal ki ko jiite di Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue moom Serigne saa Moustapha Fall mag ci ñoom moom Cheikh Modou Moustapha Fall mag ci ñoom. ñu ànd ànd ak taalibe yëpp nag ñuy tudd yàlla fas yéenee ñëw fii ci kër Cheikh Mouhamadou Fadal ziar sëñ Abul Baraka xam naa dañuy jox kàddu gi dañuy bàyyee ak kàddu gi ki nga xam ne moo njëkk yëkkati kàddu ci ndigal a Serigne Cheikh Jëmm Fall mu Serigne Saliou Fall Fat Saw ànd njabootu Cheikh Ibrahima Fall ga fa daje gépp buntu kër bu ci nekk nan ñëw ànd ak Serigne seex mii dikk teewal ko fii ci sa kanam nee ñu ngi lay siyaare nag ci bis bi sa bisu waajur wii di sunu waajur di lépp ci ñun nee mi ngi la ciy siyaare te di la ci ñaanalit nga yàgg fi yàgg koo jiite ndax nee ñun amuñu lu dul yéen ba tax na fépp fu ngeen nekk dañ leen fekk si dégg nañ sax mbake kàddu yi yi sëriñ bi wax ni daanaka ku ne mën naa toog këram defe ko fa waaye ñun day mbàkke mënuñu leen a ñàkk a gis faaw ñu ñëw ba fi seen kanam luñ ci mën a dale dale ñu fii ci yéen te xam na nag lan fi dale njariñ rekk lay doon akuk wér ak fan wu gudd akuk dolleeku kon loolu rek moo tax mu ni na ngeen dem ba fa sëriñ aboo ngeen siyaareel ma ko te ni ko nag nga dolli ñaan yi ndax sa waajur wa mu nit ñi masaan a jaaxle ci àdduna ci moom la ñu ñëw la leen jaaxal ñu diis ko ko mu dàq ko mu dem te loolee man nga ko yow mii kon nag mhm. sant rek waaw man nga ko bu wér de nee na ko lii xew ci réew mi xew ci àdduna mi ngi la koy diis. jaaxleeg nit ñii ñu jaaxle. ak seen tiitaange ji. man nga ko. nga dàq ko mu dem. ban dellu fa nekkoon. loolu rek la waxoon ni. bu ñëwee nan la ko jottali. loolu mbàkke man nga ko. ci gépp wet ci gépp wet nag. gii nga toogee. muy Seex Ibra Faal sa maam. muy Serigne Touba sa maam. te loolu doon nga ko nag. su la neexee nag. loolu dina am. te rafet nañ ci njort bu baax. te nii ñu la ko waxee. nii lañ koy gisee. wér ni la ko waxee nii lañ koy gisee Mbacke waaw jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. sëriñ Saliou nee na sëriñ Cheikh jëmu nee mi ngi lay ñaanal. ci liggéey bee nga xam ca darajey liggéey bee nga xam ni. ndigal la nu fa yóbbu. ndigal moo nu fa yóbbu. kër Cheikh Ibrahima yëpp. kër Cheikh Ibrahima Fall yëpp. fukki bunti këram yëpp. fukki bunti këram yëpp. ñëpp daje nañ fa. ñëpp daje nañ fa. ñoo ngi ñaan ci barkeb Cheikh Ibrahima. ñoo ngi ñaan ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall sa maam. yàlla sama borom dolli la ak wér. te saxal la fii. te saxal la nga yàgg fi lool. ñu di la fi fekk. ndax loolu kat bëgg nañ ko dafa am loo xam dañ koo sañul nag ndax dañ ñoo jige waaye sañ na noo ñaan nag nga yàgg fi lool tam ànd ko wér jërëjëf Mbàkke doo nga yëpp a ngi nii nag ñaanal leen nag ba loolu ñu wax daal duñ ko gis mukk ca rafet nañ ci njort nag jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke loolu la sëriñ waxoon daal ne nin ko daan defe rek defe nañ ko ni ñuy ñaan nak mbàkke nga ñaan mu yag lool nak yag la ko defal nak ne li serigne saliw wax ñi ñew nak dañi mom nga yow ngay ñom rek kon nak ñoo ngi ñaan ci barke serigne fallu Mbàkke barke mamoudou mustapha Fall barke seen jewriñ ya suñu borom yagal la fi lool te wéral la lool ba lii la sëriñ Fallu Mbàkke di liggéeyloo teg ko ci sa loxo nga defe ko noonu ko bëggee yaa ngi ko bokkal ñëpp te ngeen yàgg lool nee na suñ xol sedd na bu baax Mbàkke jërëjëfati Mbàkke Balla jërëjëf sëñ Saal ne liggéey moom miir ba daanaka yàgg na fondation bâtiment ya ca la nekk nii moom daal Mbàkke ma ngay dox nan bëgg mu mel ni daal muy li ngeen bëgg fas nan yéene mu mel na loolu rek lañ ci bëgg Mbàkke jërëjëf Mbàkke Balla jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki sëriñ bii di toog di sëriñ Abou Baraka muy waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Abou ngi di nuyu ci kàddu yu sell. di leen jotti li nuyoo ku tedd gi sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké ak njabootu seex Mamadou Faral gépp mu leen di xamal de sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général di Baye Fall mii fi toog toogaayu maam Cheikh Ibrahima Fall te mati ko sëkk ànd kooki rakkam ak i dongam ak i doomam ngeen jottali ko am nuyoom ak ñaanam goo xam ne si ci xolam la ko tibbe yoonu maamam wii ka maamam jox yàlla na ko yóbbu foo ko kenn mës a yóbbu yàlla na ko yóbbu te Cheikh Ibrahima nangul ko liggéey bi mi ngi leen di xamal ne de màggal gi de coow yi bari na lool waaye xelama ngi soog a dal dëgg dëgg dal bi ngeen fekkee ko fii di njabatu njabootu Cheikh Moustapha Fall di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall xelama ngi soog a dal dang-dang yi ñuy wax biir na ko ne bu màggal gi dem yóbbaale mooy tawet yi ñuy wax te mu jaaxal ñëpp jaaxalul sëñ Touba Seydou Fall jaaxalul seex seex sëñ sëñ Mouhamadou Fadal Mbacke mii nga xam ne ñu bari ci seenu njaboot ci yéen ñii ak ñi jiitu amante ne nañu ma ak kóllëre goo xam ne si ak ak bennoo goo xam ne si lépp sëñ Touba ko waral nee na moom de am na xel mu daal bu baax a baax bu ngeen ñëwutoon dana jaaxle lool waaye ndokk ba ngeen ñëwee sant na ci yàlla sant sëñ Touba sant Seex Fall keroog bi yàlla dogalee de Aliou Ngouye Ndiaye ñëw fii. man ak mom ak yalla mu tok la ko señ bi wax sante yalla rek sante tuwa touba sante Cheikh Rafal ba mu ñewé ne ko magal geema yëkëti mu ne ko ci lan mu ne ko magal geema yëkëti mu ne ko man ndax ba xam nga ne doomi digal la ñeema de duñu julli duñu wor duñu asaka ta ay dof lañ dañuy duur ma ngi tok li la ko netti mu ne ko ah, awal lol moy lan mu ne ko moy li ma wax rek ndigal la ma ko jox ndi la ma koy xañ sëñ Touba gi fii mu ne ko waaye sëñ Fall mu ne ko sëñ Touba sëñ Fall daani ci biir sëñ Touba du wax na ko ngeen dégg ko mooy sëñ Touba mayit maa nga foofee mu ne ko kon man damay dellu ci sëñ bu mu ne ah, kilifa nga de du ma la yónni waaye man foofu laa nekk daal daal di ko ca teg ne ko nag mbaa xam nga ab benn dofa ngi fii toog keroog mu fekk fi sëñ Assane mu ne ko kenn ngi fii toog taxawu lu ko fi indi kon sëñ baa ngi sant bu baax a baax a baax. ba mu fi toogee di sëñ Fall du Cheikh faal ba léegi lu mu nekk gunge ngeen ko ci tax ngeen koo ñeme yàlla na yàgg yàlla na yàgg yàlla na ngeen am ngërëmul maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ngeen am ngërëmul seen waajur te dana am incha allah ndax sëñ bi bu ko waxee dana am xolam seet na lool. sëñ bi ne sëñ boo nee lépp yéen a waaw nee ku mu ko bokkal bàyyi na ko xel ngir yéen ku ko bokkalul bàyyi na xel ngir yéen jërëjëf Mbacke jërëjëf. kàddu yi nga xam ne jëpp na fi Serigne eh, Saliou Fat Sow ubbi kàddu yi Serigne Falilou Fall moom sëñ bi moom tam moom tam doxtal ci kàddu yi am solo waaye Serigne Abol Baraka yi dégg ngeen ci biir kàddu yi mu ne eh, coow li bëri lool waaye nag ba njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall loolu nag ñi ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jaare ci lépp loo xamante ne bi mi ngi yëngu ci àddina ci sunu borom saafaral na ko ci barkat maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridine di leen ziar bu baax a baax nag te di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal bu baax euh, sunu cameraman Serigne Fallou Ndoye waaye jaajëfal bu baax Serigne Fallou Fall moom Serigne Aliou Fall Mbor mi nga xam ne moo ñuy jàppale ci liggéey bu tedd bi nga xam ne cheikhrafall.com mi ngi ci def lu am solo yaatal ak yàq li liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall はい